Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance voler, merci de vous et de like, merci de vous et merci également gars de baisser commentaires, un plaisir les gars. chaque fois de partager une information yi bokk fait pour les maintenir. 14 régions du Sénégal ruqu-ruqaat gox également ci l'hôpital hôpital yi sécurité du Fébar, yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngay wér ak jàmm ñu ci yi aussi erreur judiciaire ak jiñ leen ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom gën leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñu dëddu àdduna suñu borom xaar leen àjjana fi daw ci gars yi te on avance ensemble dans la magie de e-sport TV l'actualité en continu gars yi actualité ñu fa seen waxtaanee équipe nationale du Sénégal Sénécan moy Sénécan la leen tuddee gars yi Sénécan bi nga xam ne ne gars yi nag raafle nañ lépp ah mu nekk également trophée bo xam du Manita ëpp na Manita nañ ci dellu ci kanam mais aussi parler des prix yi nga xam am nañ ko mais aussi gars yi nag ah parenthèse bi gars yi <laughs> ñu doon wër gaz bu ndaw gaz bu ndaw ah bu équipe nationale Tchad gaz bu ndaw bu kaa bu kii ak ni Maroc ak nii ah <laughs> gars yi bu ndaw gi nii numéro 8 bi ñu ko doon seet ah supporter gaz bu ndaw gaz bu ndaw ñu ngi lay ziar ah sa turandoo gi nii ah, gis ngeen ko mais également merci à vous les supporters. du Sénégal. Merci également à vous les abonnés de eSport TV merci d'avoir vécu cette canne avec nous canne bo xamné na gars hein, dañ ko jël canne à sucre diko lek également nek CAN bo xamné aussi dafa am lu muy Sénégal mais le Sénégal aujourd'hui encore qui a montré que ne am une mentalité Sénégal légui dañu nek équipe qui xamné ne dañ ñuy mëne mais duñu perdre espoir duñu perdre suñu mental de nous tenir ba gagner deux buts à un Disney guy ils ont tenu pendant plus de 90 minutes tek ben intensité bo l'armoire du Sénégal qui se remplit avec un sixième titre parce que du cinq mën nañ wax mais également bu également ñom gagné coupe d'Afrique donc mu nekk six ëpp donc six le gars yi donc l'équipe nationale du Sénégal qui la gagné ñu nous ndax ñu ubbi sommes également donc avec le Sénégal avec Sadio Kaiser magnifique mané aussi avec les euh, Lions Chan nous avons gagné nous avons gagné ñoom Lamine aussi avec les U20 ak avons Pape Demba Diop Dupont mais aussi avec les U17 avec Serigne Fallou Serine Fallou Fallou numéro 4 nañ il est en train également de montrer que c'est un futur joueur un grand joueur de l'équipe nationale du Sénégal 4 bi Fallou il a fait un match exceptionnel de même que également Abdou Aziz Fall Abdou Aziz Fall Fall Ndiaga Yaram également un jeune qui qui doivent être fier de ce gosse le Sénégal est fier de ce gosse également mais qu'est-ce que c'est parce que c'est toute une génération équipe le boo ni ñi ni ci banc bi défense bi gardien yi ñëpp ni ah, Diallo ni ah, Abdou Aziz Yaya ni Fallou Fall Omar Sall ñoom Amara Diouf Mamadou Sadio Ibrahim Diallo Alassane Traoré ak ñeneen ak ñu Tok ci ak Savané bi ils ont fait quelque chose d'exceptionnel mais que dire de Sering, Salut Dia SSD SSD taille. il a montré encore une fois que ni ñooy patriotes Qui Beaucoup qui respect à lui c'est quelqu'un qui il est très humble Oyeuf disponible mais aussi gëm Sénégal bëgg Sénégal def ko ci xolam un vrai technicien à l'image de Omar Daf qui fait le taf également à l'image de Pape à l'image également de tous les autres entraîneurs yi nek Sénégal nga xam kenn xamuñu le à l'image également du père de du formateur bo xam suñu grand la nek Pikine di former boo yu bari mais aussi à tous les gens qui sont passés di également Joseph euh, Koto ñu koy également di ñaanal yalla na suñu borom xare ko àjjana fi xamna fi ak aussi d'autres gens mais ki nga également donc donc Serigne salle de respect à lui l'homme aux lunettes la casquette mousse de stressé Serigne une Dia ki nga xam mo mooy bi Serigne Diouf également un Serigne en appelle un autre Serigne Diouf nommé best goalkeeper meilleur gardien le Sénégal meilleur gardien à la CAN avec les lion seniors meilleur gardien également avec ñi nga donc Moy U20 meilleur gardien également ak ki nga aussi gars yi donc CHAN meilleur gardien avec les U17 meilleur buteur également ak ki nga donc qui di Amara Diouf qui ma tuddee El Niño de Oro Domu dagoudan Domu Pikin, Pikine le numéro 10 du Sénégal Amara Diouf yi nga xam ne gars yi waroon na sax meilleur joueur mais gars yi comme ni ñu def rek ni ñu def ils peuvent pas tout lui donner Amara Diouf Bonne continuation, la tête sur les épaules, beaucoup plus de simplicité, collective également, mais tu vas loin Inch'Allah rabbi. Et miya dafa woné intelligence am limu jëlé penalty bi jox ki xamné moy donc Seigne Fallou mais également le marocain, hein, nos frères marocains, désolé mais nous moy lool après la bataille hein, après la pluie c'est le beau temps ñom lañ équipe fair play le Maroc félicitations à vous également suñu frère ngeen mais tay moy lool ñi di également wa Burkina Faso man of the competition Souleymane Aliou lañ donc le joueur burkinabé lañ que doon baña jox xam mooy Amara euh, Diouf bu ko joxoon keneen si xarit Sénégal il aurait mérité mais comme aujourd'hui encore je le dis yàlla ñu yàlla dafal cat suñu Sénégal bi ah hein, sixième trophée continental bit soccer am li nga xam mooy donc sourd équipe nationale A, Chan, local U20 et les U17 guys. Les U17 du Sénégal, le Sénégal champion d'Afrique guys. Vous êtes champion d'Afrique encore une fois. Tay mbokk Sénégal yi que Maroc il laa koy dédicace ndax xam naa ne tey a ngi toogoon ci comme je l'ai dit rek gagne bi gagné na couscous marocain bi gars gagne le couscous marocain camp bi gaay suñu cere cosaan bi gaay séeréer yi ñoo aye moo tax lépp nag ay firnde la juufeen yi séeréer yi ah borom cere yi ñoom ñoo gañe tey gaay yi on va revenir sur ce cas Serigne Fallou Diouf woy leen di like woy leen di abonné quand c'est important sur yi abonné leen abonné leen gaay jaa ngeen jëf